léegi dañuy activé affaire Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang mbaa mhm. Mame Mbaye Niang ñëpp xam nañu ne n'est-ce pas verdict bi cour d'appel def c'est une commande politique c'est une commande politique mhm. d'abord procureur amuloon dara li nga xam ne moom moo ko war a boole ci ci procédure boobu mhm. mais nee na injure publique ah, mais non am na am na mais képp ku képp ku liggéey tribunal. muy avocat muy magistrat soo waxtaan ak ñoom day lay naan en matière de diffamation procureur amul dara lu muy wax day ñëw rek toog waaw suñ ko laajee mu ne appliquer leen loi ay procureur léegi moom mooy def appel. Mhm. mais dugaloon nañ ci injure publique. ak eh? faux usage de faux entre autres voilà ci dossier alors que diffamation kese la woon au début. kii dafa porte plainte pour diffamation. lu ci yoonu procureur bi mu dugal ñeneen ñeneen ñeneen Mame Mbaye Niang sa plainte moom ma porté plainte. Mhm. Eh, day citation directe la waroon def. citation directe la waroon def. waaye procureur profité n'est-ce pas. Mhm. Eh, ñe jër ñeneen deli dugal ko ci biir. Mhm. te loolu ci kaw Sonko bi rek la am. <laughs> am na mais tous les jours ñu def ñi citation directe. pour diffamation ak yeneen ak yeneen. waaye am na. mais parce que procureur. ñi ñi ko élif ñoom ñoo bëggoon utiliser affaire boobu pour n'est-ce tere Sonko mën a nekk candidat à la moo tax kële bi mu àttee en première instance. Mhm. te ko daan yoo xam ne daan yu woyof. deux daan yoo mënul tax ba mu. Euh, euh, mënu ko éliminer. Mhm. procureur def appel n'est-ce jël ñeneen délai dugal ko ci biir. Euh, n'est-ce pas euh, voilà juge yi dafa leen li ñu bëgg. 6 euh, mois de prison parce que diggante bi dañu changé tri dañu changé tribunal tribunal yi. eh ki nekkoon procureur. ki topp léegi dañ ko jël def ko mu nekk président président cour d'appel. Siré Ali Ba. <laughs> donc. Mhm. dëkk baa ngi noonu. ok Macky dafa naax naaxal suñu état de droit ak démocratie. L'état de droit est à genoux. Mm -hmm. La démocratie est à genoux. moo tax damay naan quel soit président buy ñëw. Mhm. muy Amadou Ba muy keneen. n'est-ce pas dafa war a def une rupture radicale ak ni Macky Sall yore réew mi. Ah, mhm. Mhm. rupture radicale. ndax Macky musul musul wóolu boppam musul wóolu boppam ne moom mun na gagner élection tant que n'est-ce pas fexewul ñi nga xam ne. n'est-ce pas nekk ay opposants yu significatifs. parce que en 2019 nemmeeku nañu même chose en ñu bëgg a rencontré waat 2012 ko mën yàlla dafa def mu mu mu mu génnee. Eh, euh, euh, euh, parce que les socialistes là déggoo ñun seen biir. ñu sama ñaak Thanos ñu déggoon seen biir. xëy na du dem deuxième tour. Mm-hmm. donc il e il a il a pu passer c'était tout sauf Wade. tout sauf Wade effectivement ndax parce que ñoom yëpp dañu jaayoon sénégalais nii war su toogee. n'est-ce pas doomam la koy joxaat. waaw. <laughs> voilà dévolution monarchique du pouvoir. Mm, effectivement moom la ñu utilisé woon. Mm-hmm. Sénégalais yi nag bëgguñu loolu. ñu donc tout sauf bi mu toogee nag n'est-ce pas pour moom euh, voilà élection moom pour mu gagné ko il mu éliminer ñi nga xam ne ñoom ñooy voilà. te loolu joxewul charme démocratie. voilà. daa mel da nga bëgg nekk da nga bëgg nekk champion arène. Mm-hmm. nga ne doo ak ak Balla Gaye doo bëri ak Eumeu Sène doo bëri ak Tapha Tine. mënul ne. ñu <laughs> eh? bëgg nekk champion champion arène. <laughs> mais loolu loolu la. mënul nekk c'est impossible. soxlawul loolu. Mm-hmm. Amadou Ba soxlawul loolu. ok waaw. Mm-hmm. voilà mais. Amadou soxlawul loolu. Ah. na ko bàyyi na bàyyi ñëpp présenté Amadou Ba présenté. su gagné ñu xam ne gagné na. waaye nga gagné élection euh, da nga sa adversaire yu gën a yu a am doole nga ne gagné naa 53 pour cent. comme lu mu le en 2019 gagné naa 53 pour cent ma 56 pour cent. alors que Khalifa Sall ak Karim Wade. Mm, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon opposition yu gën a nga jël leen rëq leen ci biir kaso éliminer leen. Mm-hmm. Eh, nga fëgg sa dënn nga ne gagné nga. ok parce que ñi nga waroon bëril. bëriwoo ak ñoom. bëriwul <laughs> eh? champion maay te bëriwul ak Balla Gaye bëriwul ak Double Less ak Tapha nga ne maay champion arène. Eh? Mm-hmm. Amadou Ba nag soxlawul loolu. Mm. kon na bay ñëpp présenté wu. Amadou su gagné ñu xam ne moom la Sénégal yi bëgg. waaw soxlawul loolu. Amadou Ba sa warul nangu Macky Sall da koy dugal ci ay affaire am. waaw na jël ses responsabilités. Mhm. def campagne am. su gagné ñëpp xam nañ ni gagné na dignement waaye gagné na parce que Macky Sall daf ko dafa utiliser yoon pour éliminer adversaire pour que moom mun a gagné je crois que loolu tamit euh, daf koy topp rek. la dina ko topp. Mhm. même continuité kon la gis bu boobaa. mais voilà te loolu arrangé wul askanu Sénégal. dina ko topp. ok te man damay damay yaakaar ne sax Amadou Ba bés bu toogee du doxal nu Macky Sall nu muy doxalee. Mm-hmm. gis nga Aliou Sall rakkam bi. wala Amour Sall doom bu mu jur. Mm-hmm. suñu toogoon dañuy doxal Macky Sall nu mu doxalee. Ah non. ok danañ def rupture par rapport à Macky Sall kenn mënul yor Sénégal Macky Sall ni mu ko yore kenn mënu ko def sax bu mu jur su toogoon ko du doxal nu mu doxalee. Mm-hmm. waaw waaw dina dina dina am fitam yore réew mi nu mu ko yore n'est-ce euh, jongante ak ñu war a jongante. dina ko def. ok mais spécialité bi nga xam ne dañ koy nemmeeku ci ay dossier Ousmane Sonko parce que à trois mois euh, des élections on peut mois des élections ñu ubbiwaat li nga xam ne mooy benn dossier boo xam ne mën na tax mu bañ a bokk ci élections yi ginnaaw ba ko waa DG bañee leen ko jox li nga xam ne mooy ay fiche de parrainage est-ce que jàppoo ne appareil judiciaire bi nga xam ne euh, ñu ngi koy teg ci kaw opposant yi wala ci kaw adversaire politique yi loolu dafa war a dakk ci réewum Sénégal mais dafa war a jeex ñëpp xam nañu ne Macky Sall fas yéenewul bay Ousmane Sonko mu présenté wu. mais Macky investissement bu mu def yëpp depuis deux mille depuis deux mille <laughs> deux mille deux deux mille dix neuf. amul mu deful depuis deux mille vingt et un pour que Sonko mun a mun a bañ a présenté mm-hmm. xaritam benn xaritam journaliste wax na ko. Mm-hmm. <laughs> Eh? investissement bu mu def. ok ñi ñi ñi ñàkk seen bakkan renforcement appareil sécuritaire bu mu def. Hmm, kër attekat yi noomee ku mu bëgg ci place bu mu bëgg. chamboulement bi. ah defu ko uniquement pour que après au dernier moment Mbaye Sonko présenté wu. Hmm. defu ko. ok il fera tout pour l'empêcher tout pour l'empêcher pour sur Mame Mbaye Niang bi procureur amoon dara la mu wut ci biir. procureur am woon dara la mu ci biir waaw Macky Sall moo fa dugal procureur pour que mun a am ci procès Mame Mbaye Niang li ma bëgg c'est tout mhm. affaire Adji Sarr war loon jógee section de recherche war foon jógee waaye bu ko utiliser pour éliminer Sonko moo tax mu jógee section de recherche dem cabinet d'instruction ba dégg ci kër attekaay investissement bu mu def. ci empêcher Sonko pour mu présenter wu. du mm. léegi la koy bàyyi. su ko bàyyi dama bett trop. waaw en moins que nag ah ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci juridiction bu kaw ba. Mm-hmm. Euh, voilà ñu am fa benn benn saba si fay. <laughs> mais nag saba si fay ndaw la. Mm-hmm. Eh, eh, ok eh, magistrat ndaw yi lu ñu ñemee. Eh, ak li ñu sañee def généralement mag ñi duñ ko def. loolu c'est un constat général. Mmh. donc euh, c'est un jeune magistrat am jaar-jaar et mm-hmm. am na ñeneen comme moom. am na ñeneen comme moom mais. sens la daal ñu bëri tamit <laughs> eh, ñu bëri tamit. Mm-hmm. n'est-ce pas euh, pare ñu jël risque bi nga xam ne moom moom la jël mm-hmm. pare ñu jël risque boobu kon tey. Euh, nañu dem ci élection boo xam ne Macky Sall ma tànnaat ñi ma bëgg pour ñu présenter wu. Hmm. te loolu doy waar la. parce que Abdou Diouf. Mm-hmm. musu utiliser yoon benn musu utiliser benn yoon. pour tere nit mu nekk président. Mm-hmm. am na ay xew-xew yu yu garaaw yu xewoon fi jamono Abdou Diouf. Mm-hmm. réew nañ ci benn juge benn juge. vice-président bu conseil constitutionnel. ok ñu jàpp ci Ablaye Wade su dee Macky Sall tey daf ci profité rek daal di ko éliminer. Mhm. centenaire ci meeting boobu Ablaye daf ci bokkoon. Mhm. la ni saa ne bokk ci. Mhm. ci meeting boobu rey nañu juróom benn policier. daggat leen. su dee su dee euh, euh, Macky la woon kon Ablaye Wade. n'est-ce pas fa lay jaar éliminer ko dootul présenté mukk ci élection présidentielle ci biir Sénégal ñoom ci seen bopp. moom Macky Sall bi mu wutee bi mu wutee nguur gi. lan la waxul. vaar yaa ngi fi lan la waxul. ci préfet yi lan la waxul préfet lan la waxul alkaati lan la waxul waa kër attakaay yi. Mhm. dëgg nañu ko. Fodé Ndiaye. ci meeting bi ñu organisé ci la ci la génne àdduna ak ñeneen ñeneen incident. Abdoulaye mënoon na profiter pour éliminer leen defu ko. Mm-hmm. Abdoulaye amoon na doole. il était un démocrate on peut dire. kon vraiment c'est une catastrophe pour notre démocratie daf ko delloo gannaaw. léegi nag y toute la propagande Pastef lii son violence. son ceci son cela. Euh, ay salafiste la ah, pour xale yi xale yi fi nekk. Mm-hmm. Eh, mun nañu nangu loolu. mais ñun ñi nga xam ne fekk nañu démb. waaw mun mënuñu ko nangu. ok et puis du dëgg sax c' est pas vrai. Mm-hmm. Pastef 2014 la judd. waaw bi mu judd 2014. Mm-hmm. Ousmane Sonko lan la njëkk a def. bind livre solution solution effectivement. commencé ay ay ay débat. di koy présenté Sénégal dem ci diaspora bi présenté ko. diggante 2014. waaw ba ci affaire Adji Sarr bi. kenn mësu dëgg kenn mësu dëgg Pastef ci violence 2014 bi 2021. waaw kan moo dëgg Pastef ci ay problème violence. waaw hmm. fi bi mu ñëwee. seen ay violence waa fa lañ koy gën a tuddee. Eh? après après 2021. 2021 waaw bi affaire Adji Sarr bi ñëwee. Mm-hmm. Sonko xam ne li ñu def Khalifa Sall ak Karim Wade ci li ñu loolu la ñu def. du ma bàyyi nag sama bopp ñëw ma abattoir ñu yóbbu Karim Aliou abattoir damay fippu. Mhm. fa la problème bi ñëw. résister. kon c'est le régime qui les a poussés à cette situation là. ba pare profito ji ngànnaayu euh, recruter takkadeer euh, tey ñu ngi naan huit mille euh, maanaam juróom-ñett juróom-ñetti junne. Mhm. jàngalekat. manqué nañu ci ci l'école yi waaye soo seetee lu mu recruté ci ay alkaati ak ay gendarme depuis 2021 xëy na mot na loolu mm-hmm. xëy na ëpp na ko sax moo tax démocratie mu yóbbu réew ci kanam démocratie moom mooy développé réew mm-hmm. waaye démocratie ci amul mm-hmm. di nga jël alal boo xam ne war nga ko duggal ci l'école parce que l'école mooy yore réew dëgg la ça c'est vrai Japon amuñu pétrole amuñu or amuñu dara lan mooy ressource Japon mais c'est c'est ressources humaines formation bu baax mm-hmm. Chine noonu dëgg la dëkk dëkk bu ndaw comme Hollande tey lan mooy seen ressource dara intelligence mm-hmm. kon tey war ñoo nekk fi Sénégal damay abri provisoire gis naa euh, professeur Mary Teuw Niane woon benn CEM boo xam ne. effectivement CEM bi yëpp abri provisoire la. ça voilà ba ci euh, eh? administration. waaw yow ngay wone li nga jënd ay ngànnaay dem Turquie dem feneen jënd ay ngànnaay di koy wone 4 avril gendarme bi naan waaw li am nañu lii am nañu lii dañuy jàmmarloo jàmmarloo kon sa askan. Hmm. doxalaal démocratie. alal bu néew bu ne ci biir réew mi dugal ko ci éducation ci jàngale ci ci njàng mi. dugal ko ci paj mi. defar réew mi réew mi taxul jam ñaajo mm-hmm. waaw. ok kon. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. sa volonté de garder le pouvoir dafa taadalu réew mi parce que lépp lu mu jël investir ko ci kaaraange gi. pour xeex opposition mënoon a dem tey ci njàng ci ci njàng bi. ci njàng bi effectivement. yi mu rëkk dugal leen ci gendarmerie dugal leen ci ci ci police. xale yu yëpp am na ñuy BFEM am na ñuy baccalauréat ñu bëri mënoo lañ recruter yóbbu lañ ci ci njàngale ok waaye daf lañ yóbbu ci fi nga xam ne foofu mooy kaa kaaraange pour xeex contre contre contre les citoyens alors que mënoo leen di yóbbu. Euh, tey dem ci l'école yi di jàngale ci l'école yi. ok eh, tey boo xam ne am na classe boo xam ne double flux wala 40 50 élèves. di mën a encadrer ci abri provisoire. Eh, classe yooyu ay ñax la ay craintal la effectivement waay kon. moo dama ne. même su dee Amadou Ba moo fi toog dina changer doxalin. ok <laughs> parce que doxalin Macky Sall moom su ñu dee continuer musiba la ci biir réew mi. <laughs>